Ya eh, ginnaaw bi tiga diggaatee ak si ci boo xam ne day wax beneen tomb bu aji ci njàngalem koor mooy sart yi yi nga xam ne mooy tax koor wér beneen leen jaawale dañoo waxoon sarti koor indi woon ca ñett mooy ak kàllafe ak man akub teew mooy tukki woo tey nag ñu bëgg a ñëw ci sart yi tax koor wér buñ noppee boole sart yi nga xam ne mooy tax mu war ak wér bokk na ci sart yi tax koor wér moy l'islam kep ku doonul ab julit so woré du wër kep ku doonul ab julit so woré du wër ndax bok na ci li tax koor wër moy yow ci sañu jëm bop nga doon ab julit la lay tax a doon ab julit nak moy tuddu baatu séré tay julli di wor di nata azaka di aji makka comme ni nga xamné ko ko defut nak dañ ko dañ ko warono duma dañ ko warono duma du may mett bu dee ab yéeféer la yéeféer bi moom xay na duggagul ci lislaam waaye li ñu waxanteeg jullit bi rek la ñu moom waaye li fee mu ngi ci ak kéeféram jullit ñi wóor mu ne day woor kooram gi wérut du koorug dara daa xiif rek sol na boppam ci xiif li ci topp ci li tax koor wér mooy jamono xam nga ne woor weeru koor moom ci jamonoom dana tax koor wér di ko fay ci yeneen bisit dana tax koor wér waaye korite ak tabaski moom daa araama koor korite ak tabaski daa araama koor moo tax jamono ja jamono ji nga xam ne dañ cay woor lu ci mënta ñàkk la kon sart yi wéral koor mu ngi noonu l'islam moo ci jamono ji nga xam ne ci lañ koy woor te du jamono ji ñu araamalee koor jamono boo xam ne koor da cay araam lu mel ne korite ak tabaski su boobaa loolu mooy sart yi wéral koor wér ak war nag bokkuñ naa wér te boo ko defee du war mën naa war te boo ko defee du wér kon wér baatu wér nga dégg ko ci sa làkk mooy lan a sixa mooy loo xam ne soo ko defee na ko defee baax dara si ko ci gone gi mën naa woor woor gu wér gone man na woor woor gu wér ndax su fekkee yéene na jàngal nañ ko mu yéene ni mu war a yéene toog ba jant bi lekkut naanut koor gi wér na waaye waru de kon foofu maa ngi doon leeral rek wér kon lislaam moo ci njëkk jamono ak jamono bi koy def bi ci topp mooy sart yi tax koor koor koor war ba noppi wér kon dañuy boole war ak wér bi njëkk mooy am xel xam nga ne ab dof su wooree koor ga wérut ku xam su wooree koor ga wérut koo xam ne waxtu wi muy daanuy rab mbaa muy say waxtu fajar la def da koy war fay ndax koram nga wérut waxtu wi mu waroon a yéene waxtu wo do ko fekk muy say te waxtu wi ko fekk muy say bu amul sago bay mana, a bopam ba mën tax mu mën and ak sagom bay bay yéene ndax xel mi dañ gim dañ ci mom motax waxtu wo ak yéenam du bax su fekke ni ki dafa daanu rap mba muy say waye fajar di jot ximbiliku na ba àndaat ak sagoom kooku fay du ko war maanaam mën naa woor mën naa yéen mu dem ndax lan xelam mucc na ànd naak sagoom laata tàmbali koor gi di jot ndax xablal fajiri moom mooy jotagut waaye bu fekkee ci fajar gi la da koy war a fay su fekkee bi muy say waxtu fajar la day fay su fekkee laataa fajar gi la du ko fay kon am na ñoo xam dañuy am tawatu am xel di daanu rab mbaa ñuy say mbaa noonu ñu koy tuddee waaye niñ gën a miin rek mooy dof boo xam ne ak dofam ak dofam mën na yàgg kooku boo wooree du wér koo xam ne nag daa say ginnaaw fajar daa wala mu daanu rab ginnaaw fajar mu wéyee léeg loolu bépp kooku war naa fay su fekkee daa daa say ginnaaw fajar wala mu daanu rab ginnaaw fajar wala ak ndof dikkal ko ginnaaw fajar li ma wax yëpp mën naa doon benn waaye ngir ku ci nekk ya ñii say lañ xam ñii daanu rab lañ xam waaye lépp xeetu ndox la ku ci nekk dañuy wax ak ci li nga xam rek ngir nga mën a xam su fekkee nit ki daal say ginnaaw fajar wala muy daanuy rab ginnaaw fajar wala ak ndox dikkal ko ginnaaw fajar mu dem ak moom ba ci xaaju bis ba ci xaaju bëccëg gi kooku fay waru ko déglu leen bu baax fay waru ko daa fajar moom ñëw naa ci waaye ginnaaw fajar laa wax ci daanuy rab ginnaaw fajar mu dem ba ci digg bis bi fi bis bi xaajee muy doog a ximbiliku kooku fay waru ko waaye su fekkonte ne bi bis bépp la say fekkoon bis bépp daanu rab yi ko jàpp ci bis bépp kooku bis da ko war a su fekkee ci xaaju bis bi la ximbiliku du ko fay yaakaar naa dana leer lan moo tax ki dof war a fay saa yu àndaateeg sagom sunu borom moo ko wax ci alquran te alquran bu xasee wax topp ndigal rek moo fa sëf wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin nuxar ci njàngum wartu sooy jàng xafsu wa man kaana maridan aw ala fa iddatun min ayaamin uxar loolu mooy njàngum xafsu te it marid wa man kaana maridan ki ki dof kay daa tawat ki dof daa tawat la ko la ko sabab la ko tàqali xelam moom tàggali kooku sagom loolaay sababu ndof ga te suñ borom neen wa man kaana maridan képp koo xam daa tawat wala mu nekk ci ab tukki kooku mën na xool yeneen bis yi ko ndof ko dikkalul te tukki wu ca mu fay bis yooyu nga xam ne moom moo ca amoon ngan ci weer koro kon loolu moo doon sart bokk na ci sart war ak wér bi ci topp muy set ci dereti mbërëg ak set ci dereti meret nifaas ak xayd sunu mbokk yi nga xam ne ay soxna lañ sunu borom moo leen bindee weer wu ne suñu wéree ñuy gis mbaax lu am solo la ñoom ndax suñu borom mooy laabal seen jëmm seen biir ngir mbindeef fi war a gën a ci ñoom jaar ñoom ñu mëna mucc ayib kon koor warul jigen ji nga xam dafa gis deretu mbax koor warul jigen ji nga xam dafa am dafa gis deretu ko am dom deret jooju naan nifas, su ko ji fe tam sababoo ci am dom wala bi nga xam dafa sababoo ci labalu biir bi ko sunu borom defal ci wër wu ne koku koor waru ko saa yoo xamee na nak mom soxna sa labna dem na ba gis ak fen bi wala mu gis Euh, ndox mu weex moomu nga xam ne mooy bàyyi ko ci moom te bi mu koy gis mu doon waxtu fajar waxtu fajar ci la gis ndox mu weex wala ci la gis fenduk awraam su boobaa koor da koy dal di war ci bis boobu su fekkee jigéen daa sikk sàkk ndax laab bi mu ko dikkal laataa fajar wala gannaaw fajar bu dee ci fiqhu Maalik dañ koy digal ne ko yéeneel koor ndax su fekkee bis boobu dañ naan ko fekkee laab ci waxtu fajar la la ndax su fekkoon bi la laab gi dikkal da dikkal ginnaaw fajar fekk na fayoon nga ko waaw Malik day imam Malik radiyallahu anhu waxee jullit bi ci waxin bi gën a wér su fekkee daa sikk sàkk ne moom bi muy laab waxtu fajar la dañ koy tegal ñaari mbir dañ naan ko bis boobu jàppal koor nga woor ba wer ko wi jox ñaan la ñun la ñun la mel na ko fayat fayaat ko ndax lu daan koy fay moy sikki saka gi da mel na deug soy sikki saka ne ñett raka nga wala ñaar da ngay japp ne ñaar nga am da di julliwaat ñett ba su fekk da ngay sikki saka ñett nga am wala ñent da ngay japp ne ñett nga am da di indi ñentel ba kon sikki sàkka dafa mel na deug motax ñaan la woral bis bobu nga xamne yaangi sikki saka ne lab gi mi ngi la digal waxtu fajar waye suñu woré dang koy fayat ben bis rek fay moom fayandoo ak yàlla suñ boroom waaye yow ci sa jëm bopp yaa bëgg aw yiw ëllëg bëgg sa lépp mat nga mottali sa mbir loolu kase la kon e, foofu day na yem su ko wóorul nag jigéen ji su fekkee soxna si si doon gis deretu ma rek su fekkee wóorul lii ma wax wóorul bis boobu ma wax wóorul kafaara ndax da ko taawil rek wóorul kafaara mooy teguñ la ay daan kafaara danañ ci ñëw ay daan la yu ñu la teg yoo xam ne soo dogee ci weeru koor te tey ko incha allah kon benn rek ci des mooy dugg waxtu wi kon mën nañoo taxaw foofu sart yi tax koor war wér ñett la mooy am xel ak set ci deret bu mbërëk set ci deret nifaas waaye waxtu koor waxtu ramadan jot ndax bu waxtu jotul boo waree koor ga du du war du wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu